ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy technicien bi di Basirou Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ma ñu xéewalal xéewal ya nekk fa moom te duñu xaaj duñu jeex waaye du dañ di ko doomu aadama yi rawatina askanu julit ba ñu bokk te yàlla boole ñu xéewalal ñu xéewal bu mag ba toll ni ñu fekkee bés ni ki tey waaye moo may ñu xéewal wa toll ni ñu war a mën a joxe waxtu yu julli suba bañ doon julli waxtu su néew ci ginnaaw mu doon xéewal joo xamante ne du suñu ngóora waaye daf ñu ne rek ci alquran wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha bu dee da ngeen nara lim xéewal yaleen yàlla xéewalal du ngeen ko peeg di ngeen ko mën waaye nag dañu war a doon jaam yoo xamante ne duñu deñ di sant yàlla ci xéewal yem ñu xéewalal xéewal yooyu bokk na ci bu ci gën a am solo mooy xéewalu julli suba bañ doon julli waxtu su néew ci ginnaaw ginnaaw ba ñu déggee noddkat bi yëkk yëkkati baat ba toll ni mu di wax màggaaju yàlla ak dayoom waaye mu teg si ne mu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku yàlla mu teg si ne mu ngi seede ne Muhammad de yonentu yàlla la mu daal di ci teg ne hayya ala salaa kaay leen ci julli julli joo xamante ne moom la yàlla def mu doon échelle baleen di jokkale seen digganteeg seen borom mu doon julli joo xamante ne ca la yàlla def mu doon pont bayleen di jokkale ak seeni borom waaye julli joo xamante ne moo tax yàlla bind leen te mu doon jëf joo xamante ne moom la suñu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam awalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowm al qiyaama lu njëkk la ñuy atte doomu aadama keroog bés penc mooy jullim kon bu ñu yàlla wërsëgalee mu xéewalal ñu kàttanal ñu ba ñu joxe waxtuy julli woowee ñu koy ñaan yal nañu yàlla kattanal ñu mën a joxe yeneen waxtu yu julli ya des bés bi yàlla mën na ko sañ na ko yal nañu ko yàlla boolee defal amin ya rabbal alamin ba léegi ñaareeli xéewal yam ñu xéewalal mooy xéewalu nelaw xéewalu nelaw boo xamante ne buur yàlla dakaa dispersé partagé ko diggante mbindaa foo ni ñëpp soxla ko ñëpp bëgg ko amul kenn kuy dukkat ci kaw suuf si lu dul dina sopp la nga xamante ne mooy nelaw te dina ko bëgg waaye da koy yittewoo ngir mu di ko def kon yàlla ma ñu ko wàcceel mu di ñu wax ci aaya yu fasante ko ci téere alxuraan ba ñu yor mu di ñu si wax ne man yàlla maa def nelaw mu doon dallukaay wi nga xamante ne fa ngeen di amee lépp li nga xamante ni yéen a koy soxla ci nelaw mbokk yi bu duwutoon lañu buuru yàlla tabaraka wa taala wax ne man yàlla maa leen defal nelaw mu doon seen dallukaay amul kenn ku ñu war a mën a andil xam-xam bi ni mel wala bi ni mel kon bu ñu yàlla waxee ci alquran ci ay saar yu fasante ko mu ne ñu waj'alna nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal seen nelaw mu doon dallukaay ba nga xamante ne fa ngeen di amee lépp loo xamante ne yéen a ngi koy faggu yéen a ngi koy mébét ci la ngeen di dallu defal naa leen ko ci nelaw ba nga xamante ne moom ngeen di def defal naa leen ci nelaw boobu dallukaay woo xamante ne defuma ko fenn te defuma ko ci leneen lu dut foofe kon ñu sant yàlla buur ba ñu wërsëgal dallukaay ba ñuy dalloo rawatina mu jaarale ko ci nelaw mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot a ngi fàttaliku ñu ngi nekkoon ci suñu thème bi nga xamante ne ba léegi mooy amalu saalix muy jëf ju baax jëf ju yiw bi nga xamante ne dañ ne doomu aadama bi de bu dee amul kenn ku la war a mën a épargnel jëf ju yiw xanaa yow war nga kaa war a mën a épargnel sa bopp war nga war a mën a dajaleel sa bopp jëf ju yiw joo xamante ne ëllëg bés pénc bu la kenn yóbbantewul loo xamante ne moom nga war a njëriñoo xanaa war ngaa jiitalal sa bopp jëf ju baax joo xamante ne boo fi jógee ko bu dee nit ñi amuñu jot pour yóbbante la bu dee nit ñi amuñu jot pour yónni la la nga xamante ne mooy la ngay banneexoo ci foofu nga tëdd waaye yow ci sa jëmm bopp war nga ko war a mën a dajaleel sa bopp war nga kaa war a mën a fàggul sa bopp ba tax na ñu fas yéene ànd ak yéen ñu ñaaxante mayante xemmemteef kenn ku nekk ci ñun moo xam kii wax la moo xam ñay déglu la nañ leen bokk xool ana mooy lañuy géema géem suñu bopp ngir ëllëg ñu fekk ko suñu tiraayu bàmmel bu dee nit ñi amuñu jot ngir yónni ñu la jëfandikoo ci suñu tiraayu bàmmeel boobee waaye ñun suñu jëmu bopp ngalawaay nañ leen géem a góor góorlu yóbbante suñu bopp la nga xamante ne mooy lañuy fekk keroog suñu tiraayu bàmmel mu nekk amalu saalix bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ñuy baaxee ci téere bi ci suñu téere alquraanul karim bu ñu demee xool ci saar bi nga xamante ne moo nekk saar yi fasante ko ci alquraan waaye nag mu nekk ay aayaat yi nga xamante ne ay aaya yu fasante ko lañu ci biir alquraan dinañu fekk ci sa yoo xamante ne fenn fu nekk boo demee xool dinga fa gis li nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ñu fay wax ci ay aaya yu fasante ko mu di ñu baaxee la nga xamante ne mooy la doomu aadama bi di géema préparel boppam mu doon ay aaya yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na ci war a mën a bàyyi xel ndax buur yàlla tabaraka wa dadi buur bi nga xamante ne nee na moom de du toon jaamam ba tax na bu ñu demee xool ci saar bi nga xamante ne moom moo nekk suratul xashr dinañ fa fekk suñu borom tabaraka wa taala mu di ñu jox avertissement ci aaya ba mu wootee way gëm yàlla mu ne leen yaa ayyuha alladina aamanu ittaqu llaha waltandur nafsun maa qaddamat li gadin wattaqu llaha inna allaha xabirum bima taamaluun bur yàlla ne way gëm yàlla ngalla waaye maa ngi nii di leen avertir ma di leen woo woote wi nga xamante ne képp ku di ajigam gëm yàlla war ngaa mën a wuyu woote bala yàlla woo ba tax na mufassiruuna yi dañ ne yaa ayyuha alladina ya nekk ci alqur'an képp ku ko dégg danga nga war a waajalal sa bopp dem wuyu woote wi nga xamante ne moom la buur yàlla woote xanaa képp ku woote de boo waxut dinga joxe waaye képp ku dem wuyu woote woowu tamit buñ la joxul dinañ la wax nga dégg wax bi nag mën naa nekk digle yañ lay digal nga fas yéene jëf walla mën naa nekk ay tere ñu di la ko tere nga fas yéene kaa bàyyi ba tax na buur yàlla ne ñu yaa ayyuha alladina aamanu ey yéen ñi gëm ñi ittaqullaha na ngeen suuraale yàlla ci seen mbiri yépp te ngeen bàyyi xel yàlla ci lu bari li ngeen di def waaye na ngeen ragal yàlla tamit de te tamit ngeen suur ne wal tandur nafsun ma qaddamat li gadun na bakken june suuraale la muy jiital ëllëg yow mi ne yaa bokk ci daairatul iman buur yàlla nee na na nga wéytal yàlla ci loolu nga ne loolu nga gëm yàlla ngëm yàlla ba ngay véhiculer na ànd ak tawxiid na nga wéetal yàlla ci ngëm yàlla jooju nga ne noonu nga gomee yàlla te mu doon fas-fas bi nga fas biir xol nanga nga wéetal yàlla bañ kaa bokkaleek dara buur yàlla ne la tamit wattaqullaha na nga ragal yàlla waaw yow mi gëm yàlla wiital ko bañ nga kaa bokkaaleeg dara bokkaalewuloog yàlla dara du ci wax du ci fas-fas du ci doxalin du ci lenn yàlla ne nang ci teg deuxième catégorie te moy ragal yàlla sóoraale yàlla ci lu bari buur bi ne wattaqullaha na ragal yàlla boo ci noppee buur yàlla ne la wal tandur nafsun ma qaddamat li xadin na bépp bakken bàyyi xel la jiital ëllëg bés pénc na bépp bakken bàyyi xel la muy jiital la mu war a fekk ëllëg bés ñu nar kakaa fay ne wattaqullaha mu daldi baamu baat bi ne ba léegi na ngeen ragal yàlla ndax inna allaha naka yalla xabiirun ku peeg la ku deñ kumpa la bi ma taamaluun la ngeen di jëf waaw buur yàlla ne man buur yàlla mi di seen boroom ku deñ kumpa la dara ci seen nekkin la ngeen di jëf lépp laa xam la ngeen jëfagut xam naa ko bu ngeen demee ba di ko jëf nu ngeen koy jëfee kañ ngeen koy jëf ak ñan ngeen koy jëflanteel lépp laa xam kon na nga bàyyi xel yow doomu aadama bi ne danga gëm yàlla bàyyil xel la nga nar a jiital sa kanam ëllëg bés pénc nga fekk ko fa mu doon fagguteef boo xamante ni yàkku fagul sa bopp ba tax na bokk na ci jëfu amalu saalix buur yàlla mu ne ñu man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun buur yàlla tabaraka wa taala ne ñu képp ku jëf lu baax moo xam góor la moo xam jigéen la te mu di woy yàlla te mu bokk ci woy gom yàlla ñi yàlla ne kooku de dinañ ko dundal dund bu teey dund bu neex waaye nag ëllëg bés pénc dinañ ko fay peyoor bu gën rafet la mu jëfoon yéen a ngi fàttaleku jamono ji ñu nekk ni suñu njiitu gouvernement yi ñu ngi lancé la ni jàmbat garab joo xamante ne dafa bokk ci min anwaai amalu saalih dafa bokk ci xeetu jëf ju baax jëf ju baax bi nga xamante ne bokk na ci jàmbat garab ci kilifa ya nekk ci bopp réew mi ñu suuxal ko ñu di si woo nit ñi mu doon jëf ju noobul joo xamante ne buur yàlla tabaraka wa moo ngi ñuy won ci alquran ci suratul ibrahim melokaanu gaay yi nga xamante ni dañuy wax wax ju baax buur yàlla tabaaraka wa taala méngale ko garab ju baax kon jàmbat garab ci kaw suuf si dadi geste bu noble joo xamante ne képp ku ko xam képp ku ko xam nga di ko xelaat wallahi amul jëf jikko gën a ci jëf yu baax yi ba tax na buur yàlla mbokk yi bu ñu demee xool ci téere alquran ba ñu yore dinañ fa fekk ci suratul ibrahim buru yàlla tabaraka wa taala di ñu wax ne qaala taala alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi ssamaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha wa yadribu llahu l amthal linnaas laallahum yatadakkaruun mbokk yi aaya ibrahim buur yàlla tabaraka wa taala moo ngi nii du melale màndargay wax ju baax wax ju teey rafet wax ju dëggu buur yàlla melale ni garab ju baax garab ju rafet garab ju amal nit ñi solo ci kaw suuf si moo tax mu ne ñu alam tara xanaa gisuloo xanaa yégoo xanaa xamoo yow yonent bi waaye yow miy dund ci waaru àddina rawatina suñu réew ba ñu yàlla sëdd ñu di ko dundu suñu réew ba ñu yàlla boole ñu di fa dund mu doon suñu réew mi njiiti réew mi ak ña koy taxawee ci doxalinu réew mi ñoo nekk di sensibilisé nit ñi ngir ñu jëmbat garab jëmbat garab jooju nag ñu nar koo méngale ak aaya alquran ba nekk suuratul ibrahim bur yàlla tabaraka wa taala niñu alam tara xanaa gisu leen xanaa xamu leen xanaa yëgu ne kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayibatin ka shajaratin tayiba na yàlla di joxe melokaanu wax ju baax moo ngi mel ni garab ju baax te tey dagan garab ju baax jooju na muy mel ci kaw suuf si mooy borom bi ne garab ju baax jooju mu ngi mel ni wax ju baax wax ju baax mu ngi mel ni garab ju baax jooju nekk ci kaw suuf si buur yàlla ne ñu asluha thaabitun reen bi dafa sax dëkk dëgër këcc si biir suuf si waaw amul ngelaw ba kay buddi di ko sànni amul ndox bay ñëw bi garab bi di ba muy jóge ko foofu mu nekk déedéet ndax reenu garab bi dafa sax dàkk wax ju baax tamit noonu la mel wax ju baax joo xamante ne reen bi mu ngi bàyyeekoo ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa amul dara lay ñëw biddi ko mën a déjjiti waaw kañ wax ju baax ba fondew ci alquran ak sunna daa mel ni garab ju baax garab joo xamante ne dañ kaa ji ci suuf si reen bi sax dàkk dëgër këj amul dara lu koy mën a bëddi amul dara lu koy mën a dijjiti borom bi ne woo faruha fi sama cari yeeg banqaas yeeg tiim ca kaw loolu mu nekk melokaan ba yàlla joxe ci garab ju baax jooju moo méngoog wax ju baax bur yàlla ne bokk na ci melokaano garab ju baax jooju tuuti ukulaha kulle xiinin bis ni rabbiha garab ju baax jooju de yàlla bu mu doon mango wala orange nee na garab ju baax jooju de day bëgg toujours saa ne muy partager nit ñi meññeef ya muy meññ te suñu kilifay réew mi nekk di jëmbat loole ak ñëpp ñu mu àndal ci liggéey bi ñu di ko sensibiliser nit ñi ndax garab mënut a tàqale kook doomu aadama ci dundam nañ leen dem féexlu ci ron garab bi te garab ju baax jooju ma yàlla melale ni mooy wax ju baax bokk na ci melokaanam ak la muy njariñ ña koy jëfandikoo mooy keroog bu jant bi tàngee tàngooru jant bi képp ko mu sonal ci sa néeg walla sa dëkkuwaay di nga am courage bu toll ni dem lal sa basa walla sa sijaada wala sa matla ci ron garab jooje ngir nga mun a am kër bu fiix waaye kër gu fiix boobu garab bi di la offril du yem ci loolu rekk amaana gannaaw bi nga foree bët tuuti nelaw bu dee màngo la dina la war a mën a offrir meññeef ba muy meññ nga xamante ne boo yeewoo ci nelaw nga fekk mu offrir la la nga xamante ne mooy meññeefam nga daldi ko jëfandikoo moo tax mu ne tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha waaw garab ju baax jooju de bokk na ci la tax yàlla ne mooy wax ju baax ndax jëmm jooju day nangoo distribuer lu baax la nekk fa moom comme ni garab ju baax jooju di nangoo distribuer meññeef yay meññee fa moom yàlla ne noonu laa leen di won misaal boo xamante ne bu ngeen ko xelaate ngeen xool ko amaana ngeen doon ñay am xol bay waaru ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci maana xadis ba léegi mu ne ci xadisu anas bun malik radiyallahu anhu ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu tayran aw insanan aw bahimatan illa kaana lahu bihi sadaqa muttafaqun alayhi mbokk yi yal na buur yàlla meññu top ak yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ci xadiisu anas bun malik radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne min muslimin amul wenn julit bépp julit boo xamante ne yaxrisu xarsan jëmbat na lañu war a jëmbat ci ay xeetu garab aw yazra'u zar'an wala mu béy mbéy boo xamante ne dina meññ garab boobu mu jëmbat wala mbéy boobu mu mbéy fa yaakulu minhu tayrun bu dee picc am na lum ci lekk aw insaanun walla doomu aadama am lum ci witt aw baxiimatun walla bayima am lam ci jëfandikoo amut ñett ya yonent bi tudd nii nee na amul lenn lay jëfandikoo loolu nga jëmbët walla mbéy ba nga mbéy yii mu lim nii moo xam picc bu ci lekk la wala doomu aadama bu ci witt la wala bayima bu ci lekk la nee na lu dul yàlla dina la ko defal mu doon sarax ya ngay fekk sa kanam keroog bis pinc kon mbokk yi ñu déggee ci maanaa aaya bi wala ci maanaa xadis bi bi léegi ay maanaa yu bari waaye ñu bokk tink ko rek ci waxtu bu gàtt bañ ñu may ci waxtu wi képp ku yàlla man loo nga géem a góor góorlu nga jëmbat la nga xamante ne nit ñi dinañ ci jëfandikoo walla nga jëmbat loo xamante ne picc yi dinañ ci jëfandikoo walla nga jëmbët loo xamante ne bayima yi dinañ ci jëfandikoo ñett yi amul lenn lay jëfandikoo ci loolu nga bay walla loolu nga jëmbat lu dut buur yàlla dina la ko defal sarax keroog bés pénc mu doon sarax joo xamante ne dinga ko fekk sa kanam kon bu dee kilifa yi ñoo yore lay doxal réew mi yàlla baaxe leen ñu gis gis-gis bu yaatu la toll ni la aaya alquran bi àndi wala gis-gis bu méngoog la yonent bi wax ci maana xadis dañu di ko xelal waa penc mi ñu di ko xelal waa dëkk wi ñu di ko xelal askan wi nañ leen bokk sàkku yiw boobu nañ leen bokk ak ñoom àndandoor ñoom ñu sàkku yiw boobee mu bañ a doon yiw boo xamante ne ñoom rekk a koy sàkkul seen bopp te ñeneen yi duñ ci bokk ndegem bunt bu ñu ubbi la nañ leen ko géem a jëmbët donte sax kenn ku nekk ci askan bi dina am la mu jëmbët ci buntu këram mu doon garab joo xamante ne bu meññee dina doon njëriñ ci ñi kay jëfandiku waaye dina doon njëriñ ci ay bayima yoo xamante ni dinañ ko jëfandikoo imagineel nga jëmbat benn garab bu ne boy ci kaw garab bi dem jàpp mu doon garab bu taxaw mel nii la aaya bi tudd ren bi sax dakk ci suuf si car yeeg banqaas yi féete ci kaw picc bu ñëw teg fa taag mu defar fa tàgg mu daldi fa meññ doomam picc bi am dëkkuwaay ba mu créé ci garab jooju nga meññ musal nga picc boobu ci melokaan ba mu naroon na dund bu duwutoon garab jooju mu ñëw defar tàggam yiw boobu de bu la ko yàlla feyee keroog bés penc danga naan ak neexoon sama dund bi yépp may jëmbat garab ci sama giiru dund njëriñ ba fa nekk nag yàlla ñu ko yàlla kattanal ñu war kaa war a mën a xam ba ñu di ko jëfe waaye yiw ba ci bale yiw ba ci soqee ko yal ñu ko yàlla wërsëgal ñu war ko mën a sàkku mu doon fagguteef boo xamante ne ñoo koy faggul suñu bopp ëllëg buñ fi jógee ko bu ñu amul kenn ku ñuy ñaanal waaye suñu jëf ju baax jooju ñu jiitalal suñu bopp comme na ko aaya bi wane wal tanzuru nafsun ma qaddamat li gadin mu doon la ñuy fekk suñu tiraayu bàmmeel Eric bés pénc mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéene jébbal béréb bi ñooy joxe xibaar ci nasaraan noo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa dakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun baaraka allahu lii walakum fi lquraan alazim wa nafaani llahu wa iyakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu